waaw yow ca waxal bi ngay daw te moom laa lay daane incha allah Mama Lamine le 22 mai. yow Garga 2 bis boo ma caxabalee boobu ngay ñàkk say tànk dootoo bëri. en direct seen affice point com di wax fan si yëpp nan dem si affiche point com jënd ko ti seetaan nga foofu. le 22 seen affiche point com lay daw na ko yëpp mbokk yéen ñu ngi suivre seen site internet lu tv com ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare tey vendredi 13 mai 2022 ñu ñëwaat ak yéen ci yéen kaay comme ni ngeen ko amee chaque jour mu ci ànd ak Boucar Ndour Kor Mama di ci ànd ak waa Vice FM ca Gambie Mbirkilaan FM ca Saloum di jëmoo ak Babacar Sarr ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di leen ziare di nuyu seen auditeurs yëpp Boucar Ndour maa ngi lay nuyu bu baax a baax di la ziar. di la fay Lamine di la nuyu rek di nuyuwaat mbokk Sénégal rek ni nga ko waxee rek leen nuyu bu baax a baax di leen ziare ñu ñëw ci journalu sunu làmb ak journalu record commencé ko ci journalu sunu làmb Balla gay numéro de la xëy fësal fësal tamit ki nga xamante ne adversaire am la bokk na ci ay adversaire mu nekk booy ñaa numéro de waaye nag fësal papay Boy Niang numéro de di dégool mu mel ni moom xëy na di wax li nga xamante moom la xam ci Balla Gaye numéro 2 waaye mu mel ni genre dànkaafu boo xamante ne sax mi ngi koy dànkaafu ñu war a bëriwaat ak Balla Gaye numéro 2 daan Balla dafa am fu laaj te Balla Gaye 2 tey bi mu bëggee daan Yékini Lamine dafa am lu ko jaraloon mu def ko bi mu bëggee daan Tyson dafa am lu ko jaraloon kon Balla Gaye tamit ku ko bëgg daan Lamine mm-hmm. ah, comme li ko Eumeu Sène defee Bombardier def ko maanaam dalay jaral mm-hmm. moo bi nga xam père de Gaulle bi nga xamante mooy wéyjur bu góor si Boña Lamine mm-hmm. mu ngi mel ni nag tey mu ngi teg pression mm-hmm. a a mm-hmm. moom yamu ci loolu sax nee na Balla Gaye numéro champion la waaye nekkul champion Sénégal kese rek mais champion champion international la loolu waxi père de la Lamine waaye ak lu mën a xew xew rek euh, Boy Niang daal en tout cas ni ñu koy waxee il a du pain sur la planche mm. ah, am na combat daal boo xamante tey mun nañ ne sas la bu rëy rëy rëy waaw am na ko am na sas bu rëy rëy rëy ñëw na ci palmarès bi ñi nga xamante ne Balla Gaye numéro 2 ñu nekk ay géant ñëw na ci loolu yëpp di wax nag combat bi nga xamante mooy digganteem ak Boy combat boo xamante ni monde de la ñoo ko réclamé mu mel ni genre discours yi dafa mel ni moom lañ gën a xaar ci ci ci ci Dégol. waaw genre moom lañ xam-xam ne des il ne marche pas ses mots ne tey si nga teg discours bu métti pour nit ñi bàyyi la xel peut-être rek waaye en tout cas père Dégol ku xam tamit xam ne nit ku xam làmb la ku dund làmb la ku bëgg làmb la tamit peut-être euh, gi mu am ci làmb rek te des fois nit ñi sentir si moom ab tàng. waaye daal noonu la mag buur la. mag buur la waaw loolu loolu loolu la Olof Ndiaye wax ñu des ba léegi rek ci waxi dégal yooyu noonu wax na tamit ki nga xamante mooy président Macky Sall maanaam ak yamale sàkku na ci moom ak yamale daal. waaw nee na daal boo jiitee da ngay yemale moom wax na loolu. père boo jiitoo da ngay yemale mu yemale làmb ji ak yeneen sport yi Lamine. parce que làmb lañ am mu nekk facteur de développement làmb am na ñoo xamante ni bëgguñu làmb. buñ ko am ñu ngi def lu gën a safaanoo làmb. Mm. ñu ngi dund lu gën a safaanoo làmb a safaanoo làmb. làmb nag Lamine facteur de la c' est le de bon nombre de Sénégalais nañ ko mën a waxee rek. parce que tey mm. nekkul ñuy bëri kese mais ñiy folokay defar tisati Lamine ñiy jaay billet ñiy jaay ndox yi ak yeneen ak yeneen kenn kon làmb dafa yaatu dafa informel yaatu de telle sorte que tey mën nañ ko mën a développer ba mel ni football mel ni basket mel ni sax pourquoi pas MMA ni ko père laay waxee bu mm. mu ko jëlee barki démb yooyu yëpp ay sport la MMA la mel sport bu bees la ah MMA yàggul MMA mën na sax mënoo sax ne nekkul discipline ah mais mën nañ ay sport lañ boole mixé ñëw créé ko mu nekk ah MMA te gis nga doole bu mu am parce que dañ ko dañ ko dañ teg euh, euh, pourquoi pas ñu def noonu làmb boo gisee nag fa mu waxee mooy drapeau chef a l'état bi pourtant doon laa ko waxee barki démb ci Bantamba bi moom vingt deuxième édition mosuñu gis président assisté ko dëgg la ministre bi tey war na mën a teewal euh, président ministre des sports fi mën di toog mën na mën a war na mën a teewal président mais président ci boppam benn yoon ci année bi war na koo mën a dem seetaani làmb surtout mu nekk sa drapeau. war na koo a dem seetaani làmb surtout mu nekk sa drapeau Lamine loolu yaakaar naa ne lu ama ama am solo rek c'est que des tey eh, politique moo demoon noo ni tey ay effet de protocole mm. wala ñi ñuy wax ne président buy seetal làmb wala nii wala la ah. waaye nag làmb boo xamante tey ko darajaalee làmb boo xamante ni tey Lamine yàgg naa euh, bokk tey si lii la propulsé parce que tey nag Lamine quoi compétiteur am na fi tey làmba tax ñu gën leen xam si ay autorité mm-hmm. nit yoo xam nañ ko fi ndombal tànk kenn xama ko waaye ñu koy parrainé ay ay làmb di ko tuddee ay làmb la en mm-hmm. ba Sénégal benn président mosu ko teewee mm-hmm. ba bu daaw bi Kaolack la nekkee woon mu jaar Kaolack dem tournée ñëpp si waat jaarat Kaolack te mënu fa sax def korosé yaakaar naa ne loolu c'est déplorer ok loolu am na solo ñu des ba léegi rek ci journal sunu làmb ak Zarko Baye Mandione mi nga xamante ne dimanche la ñu war a laale dafa mel ni nag Zarko moom ak lu mën a xew dafa war a war face à Zarco ce dimanche Baye Mandione bokk ci la wax dafa war a défendre li nga xamante moom mooy statut bi nga xamante moom la dafa war mooy xoyantaan mm-hmm. euh, pour nag mu mu mu garder pour nag mu taxaw fi nga xamante foofu la taxaw foofu mu génn si ki nga xamante tey moo di Zarco yaakaar naa ne combat boobu tamit Lamine li si des bëreetul combat bi tamit li ci des bëreetul te faaw mu génn ci moom soq moom nee na daa pare daal pare na daal ci côté yëpp te nee du bàyyi dara daal ci digganteem ak ki nga xamante ne moom moo di Franc waaw du bàyyi dara looloo ko war nag Lamine parce que dafa am combat bu am am solo nag combat boo xamante a mën a confirmer ne c'est un ne mbër la fii la war a mën a confirmer ne war na mën a doon roi des arènes su fekkee ne tey euh, confirmer na ci combat bi ni kon yaakaar naa ne niñ ko waxee tànk si diggante Boy Niang ak Balla kon moom tamit combat bi Lamine a jaral a a sàgganee dara kon yaakaar naa bu xamee li ko war rek nekk ci rek avantage am la. léegi confirmé na blessure ama neex bi nga xamante ne ñoo ngi ko doon ruumandaat journal sunu làmb ñëwaat na ci nag di wax mbir mi daal léegi officiel nag ki ko confirmé mooy manager am di Mbaye Diagne nee na ama neex déposé na déposé na li nga xamante ne moom mooy certificat médical am

promoteur bi sax adversaire bu ñu fay xaalis tamit mu mu reyante entraîné def alalam def léppam yaakaar naa loolu tamit euh, da koy porter préjudice en tout cas su fekkee dafa blessé ñoo koy masawu bu baax a baax baax baax baax. blessé na yàgg na maanaam waroon na ko mën a wax xam nga blessure yoo xamante tey soo ko mm-hmm. war nga xam ne feeg un mois man du ma wér feeg deux mois mais nëbbu ko ba combat bi des jours nga wax loolu moom lu lu wax la. waaw na mën nañu ko boole si abus de confiance. parce que tey ki jël alalam jox la ko Lamine mu nekk sa nit nekk sa wërër parce que tey quoi qu'on puisse dire tey ama neex ak nga xamante ne tey moo di moo ay wëlëre lañ yàgg. Mm-hmm. kon yaakaar naa ne tëgg combat bi boolewu leen kon lu mel noonu bu amee Lamine boo mënee muñ ba mu yegg si fii rek sàmmal sa ngor bëre. Mm-hmm. wala nga teel a aviser pas Coense pourquoi pas keneen ak keneen ça ne moom mooy ay yëngu-yëngu làmb boo gisee nag yooyu su amee rek jafe-jafe moo koy andi comme comme li nga xamante ne tey dal na ko ci combat bi passé organisé ba dara desul grand combat bi problème am ci yooyu yëpp maanaam comme ni nga ko waxee day décourager le promoteur moo tax xëy mu def.

nii la réagir eh. mm. da nga koy surkël parce que li si gis mm. moo la dul doy moo la dul neex waatal ak lu mën a xew euh, moom moom dafa bokk ci làmb kon peut xam naa day xaarandi rek ba ba neex day xaarandi ba jamono neex Baye Mandione ak Zarko ni ñu ci journal sunu làmb ñëwee noonu la ci record ñëwee waa Grand Yoff mbooloo nag ñoom tamit ña ngay dànkaafu ci ki nga xamante ni moom mooy Baye Mandione Zarko bu bees lañ nar a gis boo xamante lépp tàkk-tàkk lay doon ci kanam ak Baye Mandione Zarko en feu en flamme loolu la wax kon nag yaakaar naa ne combat boobu moom Lamine du mën yomb moo tax nag Lamine des fois ni ñu koy waxee rek tamit promoteur tamit tëgg lam bu jël benn journée combat combat bu mag ah, tëgg ko rek dem jël ay ay ay larbin wala ay laskar rek dugal leen si biir da ngay tëgg combat yu neex mm-hmm. donte nag tey foo foo ngay tëgg nag booy avenir yi tëgg booy saf mais tey boo teg si galant. te boo si jógee toftale ñett ñaar ba ñetti combat yu neex. Mhm. même grand combat bi bu échec tamit du du dara parce que combat bi tey a xew tamit muy ama ma ñoon Zarko combat bu neex la. alburi alburi njamaan doomu mhm. neex la. Ah waaw le 21 moom yaakaar naa ne xanaa di nga ñëw nag xam jaxaw. mais nag la muy événement lay tombel te jaxaaw dégg naa daa sori. ban événement lay tombel non jaxaaw moom jaxaaw ak Fatick 18 kilomètres la fi ak. waaw soriwul jaxaaw Fatick. Fatick Dakar ñaata. Fatick Dakar à peu ay. 150 bu ko yegee maximum daal 155 côté yooyu la. su ma juumul waaw.